masaaya o oh. di jaa te yàlla tax lu waay man ci attan ah fi laa la wax waaw ay fi jënd na set oh. masaaya o oh. di jaa comme ah, d'abord da ngay xool waxtu bi nag waxtu bi mooy wàcc ko defee nga mën a ñëw tellement jël si démb dama laa xaar bay bëgg a dee fekk naa la masayaawo yaa xayral masayaawo di jaa masafa te yàlla tax lu waay man te attan dañoo mat la wul ba tey nu yóbbu ta njaboot ga masata woo masata lu waay am sa sente man ñoo dimbale ñu ko yaa nay doxe ñooy nangu yàlla koy fay ah waaw waaju baax waaju baax jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf yàlla na la yàlla fay waaju baax jërëjëf waay yàlla na la yàlla fay ñu ngeen ñu taxawoo di ko dimbalee yàlla na leen ko yàlla fay ba nga yëg ko waaju baax jërëjëf waay ku baax waa dama ni ku baax waaju baax waaju baax waaw waaju baax man de ah, ah, ah, amoo kii am koom ma wool euh, téléphone waaw dimbali ma rek ma wax ak moom sama benn mbokk taalibe la boo xam ni daa am lu ma war a jox yaa ngi dégg waaw damaa bëggoon nag su fekkee man nga maa may ma woo ko xamal ko ni ko maa ngi ci bërëb bi may liggéey bu ko defee moom léegi dina ma fekk waaw ah waaw numéro bi jëlal numéro bi jëlal numéro bi jëlal. waxal 33. ah 33. lan 33. waaw. waaw. 500. 556. 556. waaw. 556. 556. 33 556. waaw. waaw 56. 59. 543 56 59. ah ah waa ji yow sa téléphone bi rafet na de. allo. waaye jox ma baaba laa wax nga ma ay vous avez attan kan moo soxla. demul de loolu ko de waay yow waa ji sa téléphone bi moom gën a rafet. bi ah, merci. ah téléphone bi moom. téléphone bi xam naa ah gisuma ko de waaye. Ah. bu la may nirool de moom. waaw fii nga nekk. fii laa ne. tur xalil xalil. waaw. ñoo ma waaw. téléphone ah, mais waaju baax. waaw waaju baax est xam nga dara. téléphone bi damaa ko moom. bi noo ko moomee. lan. sama téléphone la téléphone. monsieur le policier ah eh, eh, eh, police police kaay policier kaay. non déglu ma déglu ma déglu ma policier sama téléphone. daa ñëw daa ñëw sax ma jël sama téléphone. mais da ngay dégg wuyu ma non kii ku jubali la mais taxawal ni. non mais attends kii maa ngi romb mais doy si la sama téléphone la jël taxawal ni. maa ngi lay déglu lan la. sama téléphone la bëgg a sàcc mi ngi nii. mais wuy ma waaw yow ñi nga xam ne yàlla da leen a teg métti. saraxatoo dina sax mais tu me. saraxatu la ñuy def kii kii kii yàlla waay du sàcc. ay sàcc la ngay góor jigéen la munu yàlla eh, eh, eh. gisul yàlla moo ko teg métti bi. waaw waaye ba ci lan la amoon sama téléphone. mais soo leen leen mënut dimbali ngeen bàyyi leen ak li ñu am. non la waay yow xamoo nu muy demee yow ci tali bi la ne mais maa ngi dégg lépp. waaw moo xam lan ngay def demal wala ma war renfort ñu jël si la. waaw waay du ma dem ci laaj ma téléphone bi mi ngi nii mën naa laa wax mu mel mën naa laa wax téléphone bi mu mel. waaw dinaa fi ànd ak ñoom ñu mën naa laa wax téléphone bi mu mel mën naa laa wax. góor gi may ma mu mel wan naa la ko. من المسايا يا خير المسايا sàcc la sàcc la sàcc la international sàcc la sàcc la góor jigéen ñi xam naa leen nañ maa rey lu ñu sàcc mastata lu waayam te atan sama ñoo dimbali yéenay joxe ñooy nangu yàllaay fay lu am te attan te ñu ko jox masata yéenay joxe ñooy nangu ah soxna si na nga def waay yaa ngi ci jàmm ah, naka yite yi jërëjëf waay jërëjëf yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay yal na la ko yàlla defal. waaw ah, na nga def waay alhamdulilah yal na la yàlla suturaal yal na la yàlla dimbali waaw yal na la yàlla dimbali lool waay soxna si amoo téléphone ah ah, ah, ah ma ma am ko woo ah waaw. nga mën na xam naa ni kii da may composé rek da nga may composé. da ngay wax waaw 43. 556. 65. 51 waaw. ah. waaw. ah téléphone bi moom xanaa ci téléphone yu mag yi la bokk. Ah, kii de dem jotu doo ko woo mukk ba jot. waaw doo ko kii moom ah bi gën a rafet te gisuma ko rafet na lool waa soxna si na nga def téléphone bi de maa moom. téléphone bi laa maa moom sama téléphone la. téléphone bi sama téléphone la laa wax. Ah, maa moom. Ah, lan. Ah. waaw jo jugal fii laa la wax. naa la waaw te nga toog laaj ma jàppale leen ngeen leen di lan la sama téléphone la la bëgg a sàcc. yow kii na ma jox sama téléphone. mais kii léegi romb fii. laaj ma wala ko di sàcc ay téléphone ma ci téléphone bi mel laaj ma ci téléphone bi mel. non non non attends. Oh, wuy ma laaj ma wuy ma wala kii ma. góor gi ma naa wax téléphone bi mi ngi nii téléphone bu ñuul la téléphone mu ñuul la benn bidon la am fii. sama maga ma ko jëndoon waaw mais sa téléphone bi ñuul kukku la commissariat wala nga bàyyi ko nii man gisuma yàgg na fee liggéey yàgg naa monté fii musu fee am problème donc ce sa yoon eh, nga rek la eh, ma dama nekk sama liggéey demal sa yoon waaw eh, demal sa yoon yàlla wax demal sa yoon demal sa waaw boo leen xëyee di sàcc di wër di cagatu rek di sàcc Masata. góor gi wuy ma. boo ma dimbali wul rek dinañ ma yóbbu. denc ko bu baax parce que je ne veux plus revenir ici. damaa denc bay bëgg a dee. bu ñu xamee ni gisoo rek. nga wut dugal ko ci je ne plus revenir ici. jërëjëf naa sama liggéey. jërëjëf bu baax yal na la yàlla fay yal na yàlla barkeel sa liggéey. bu baax nga ku ma taxawu nga ku ma jàppale nga. nga bëgg yàlla la ko yàlla defal monsieur le commissaire jërëjëf lu waay am masataal lu waay man masataal lu ma waay man ak dimbale jàppale ma ko neena joxe ñooy nangoo waaye yàlla mooy fay soxor jëru fee jaay iñaan jëru fee jaay lu waay am dimbalil sa moroomi néew gi doole masataal lu waay am ci attan masataal masataan ñeew ji doolee ngi yalwaan looyam waaleykum salaam waaleykum salaam waaju baax ah waa indi waay jërëjëf waay jërëjëf waay waaju baax jërëjëf waay jërëjëf waay jërëjëf waay jërëjëf sëñ bi waaju baax na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm waaju baax naka yitte yi naka liggéey bi maa ngi lay jaajëfal bu baax di la ñaanal yàlla li nga bëgg yàlla na la ko yàlla saa borom defal ndax fii day bëri nañu fi romb waaye duñ jàdd waaye nag comme que jël nga sa ñax def ko ci man yàlla la ko yàlla saa borom fulal ba mu nekk ay ay yu bari waaye góor gi yoroo téléphone alma ma am ko ma waaw alma am ko ma woo. benn xarit. waaw soixante euh, euh, soixante dix sept. cinq 546 21 47 546 jotuma ko jotuma ko ah waaye sa téléphone bi ma garaawul ah, moom sa téléphone bi rëy na de garaawul garaawul xam naa moom day naqaree jot lool lool lool ah, téléphone bi moom rëy de waaw lii moom téléphone bu xonk la wala nu mu mel moom téléphone ah déedéet moom rek moom dinaa wax sama ndijaay moom sama ndijaay dinaa ko wax mu utal ma ci ndax waa ji baax la ku baax. Ah, damay yàkkamti damay dem waaw waaw waaw yow baax na jërëjëf yàlla na la yàlla fay. góor gi sama téléphone. téléphone bi maa ko moom ku baax téléphone bi sama téléphone waaye yow. ah ok. sàcce. Eh, eh, eh. monsieur le policier. mu yaay yoon sàcce. policier. góor gi monsieur le policier. Ah? la. ñëw naa ñaari yoon. monsieur le policier. je suis man mii maay wax ak yow. kii kan kan yow. la. Oh. abal ma téléphone bi. ah ñaar yi nga jëloon yëpp ci jàmm bi ak beneen paa bi abal ma ñaari téléphone yëpp ak sama bopp. ah kese tais noppi. way dama la de. al ma ñaari. ah ah. ana be waat naa ko ci yàlla dama la doon testé. laaju ma la ni nga def di gumba gumbalu te dara jotu la. mais c'est quoi ça mais Sénégal day bëgg a tàkk wala jox ma lépp indi li ñu la jot a yalwaat. ah tegal fi xaalis bi dugal. ah eh da ngaa. waaw waaw waaye loxo ma ju. dugal eh, eh, eh, dugal la dugal. waaw taxawal ma jóg. dugal dugal dugal dugal. ah dugal ah dugal ah, ma loxo dugal dugal. Ah. yow ndekete da ngay ñëw fii di sàcc sàcc. déedéet déedéet war na yàlla defu ma xoolal barke yàlla ak ma dab déedéet maam yàlla laa lay wax su ma la su ma la bàyyi fooy aw. su ma la bàyyi fooy aw soo ma bàyyi damay def nii daal di jubam. ay yàq awal nii la awal nii nga